te fulal nu ko te nu fekk wat ko at yu bare bare bari bari yu ànd ak jàmm xéwal ak mucc ñaanal Seex Muhammadu nil Muntaqa suñ boom bàyyil nu ko fi defalal nu ko ak wér ba yim naa la Sëñ Tuubaa yépp mu sotti colet ci loxoom tam jiite na ko lu yàgg lépp naa nu ko moom den si ci bisu tedd bi di ajuma waxtaan sax foofu lay jëm tey muy jëmmi ajjuma ay jagleem ak li ci war ab jullit ajjuma dafay bis màgg ndax mooy sayidul ayyaam bisi ay bisi ayub bis bi mooy bis bi ci gën mooy sangu bis yi mu mel ni nag lu jiitu lislaam su moom da ko réeraloon ci nit ñi yahuud yi jël gaaw dekku mi seen bis nasaan jël dibéer àjjuma nag mu jagleel ko xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonent bi saa sam waxoon ne inna haada yowmu iidin jaalahu llahu lil muslimin fa man jaa ila aljumuati falyartasil wa in kaana tayib falyamassa min waaleykum bi siwaak nee na bis bii di ajuma bisu iid la bu yàlla defal jullit ñi waaye bisu feet la bu yàlla defal jullit ñi nee na képp kuy dem ajuma ji nag kuy dem ci ajuma nag na sangu ñu bàyyi lu xel ni kon ajuma kenn du ko jàppal dañ koy sangul loolu mooy sunna su fekkee am na gët nee na ca laal waaye maa ngi leen dénkit soccu soccu lu lislaam sopp la lu mu bëgg la ajuma di bis boo xam ne itam moo gën ci wala bokk moo moo bépp bis bu jant di fenk ajuma ci gën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 الصلاة حي على الصلاة am na xadis bu koy firndeel yonente bi salaa sallam wax ne adalla allahu an iljumaati man kaana qablana fa kaana lilyahudi yowmu sabti wa kaana linnasaara yowmu lahadi fa jaa allahu bina fa hadaana allahu li yowmi iljumaati nee na yàlla dafa dafa dafa réeral ajjuma te ña ñu jiitu woon xam ñu woon nga nelam yahuud yi jël gaawu nasaan jël dibéer yàlla jox nu ko nag defal nu tawféex gindinu ci yomul jumaa ba nu xam wannu la ca nekk ba tax ñu mën ko jël jariñoo ko bés bépp bés bu jant di fenkiit ajumaa ci gën yentu saas la moo ko wax ne xayu xayul yawmin talaat samsu yawmul jumaati fiihi xuliqa aadamu wa fiihi udxila aljannata wa fiihi uxrija minha wala taqumu saatu illa fi yowmi aljumaati ñan bépp bis bis bu jant ci ndax ajuma ci lañ bind aadama ajuma ci lañ ko tàbbal aljanna ajuma it lañ ko génne aljanna te saadu taxaw lu may ci bisub ajuma kon lépp kon day wone ngëneel li nga xam ne ajuma am na ko muy bis boo xam bis mu war a dundal la muy bëccëg gi ak guddi gi yépp dañ ko war a dundal lañ ko dundal ci jaamu yàlla bari na waaye la ca gën nag mooy bari ci ay salaatu ala nabi loolu na ci xadis yu bari yonente bi sallallahu alayhi wasallam di jumaati wa laylatal jumaati fa man salla alayya salaatan sallallahu alayhi ashra na ngeen di bari lu ngeen di julli ci man bis bu ajuma guddi gi ajuma bu dee ajuma guddi jéeg bu dee suba la aljuma ne képp ku julli ci man benn yoon yàlla julli ci moom fukki yoon am gim am solo nag tax na ab jullit bi mu war ndax kim war kim war ki ajum war mooy ab jullit di as te dëkk ci dëkk bi mbaa mu mar fee yàgg tey góor ñooñu la aju ma war kon warul ab jullit ab jullit su ko defee du ko am njariñ ku dul ab jullit su ko defee du ko am njariñ warul ab jaam ca ba jaam di am warul xale mu kallaf dama ko limaale ci dune mu kallaf ca la bokk ab xale waru nag bu ko defee teew dana baax ni ko eh, ne warul kii tukki ki ki musaafir la ki nga xam ne fi am ma ñeenti fan yu mat yu aju mu bokk ki mu war nag sañu koo ñàkk julli ji su ko defee rek bàkkaar bu rëy moo ko cay fekk moo tax salaa sallam waxoon ne man taraka salaasa jumaain tahawunan biha taba allahu ala qalbi képp ko bàyyi ñetti ajuma yu julli wut yu julli jiwut te ngànt woon ko xanaa doyo dal ko rek ak woyofal ko yàlla kaste ab xolam yàlla ci yàlla musal kon da ne kon am solo gu am solo xam ne julli war na ko bàyyi xel xam am solo la lu mu war a bàyyi xel la boo xam ne jaglee ajuma itam jullit bi ci faatoo muy bëccëg walla guddi ga suñu boom fegal ko fit nay bàmmeel yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ne maa min muslimin yamuutu yawmal jumaati aw laylatal jumaati illaa waqaahu llaahu fitnatal qabra amul benn jullit buy faatu bëccëgu ajjuma wala guddi ajjuma lu mooy sunu Boroom dana ko fegal mbugalum bàmmeel ak fitnay bàmmeel wax it ci ngëneeli ajjuma képp ko xam dafa sangul ajjuma ni ñu ko war a sangoo cangaay li ñu koy sangul day niroo cangal cangal jan waaye cangaayul sunna la waaye cangaayul jan ba lay nirool cangaayul set waaye cangaay la seetal ay eh, yam war a seetal yépp teel dem ci jumaa ja dox ak tànkam te bañ a war bu fekkee amul ngant te soyut te jege imam déglu bañ a def lenn lu yàq mën naa bañ a def bàkkaar wala luy lor keneen bañ a lu ëpp jullit jéego bu nekk suñu borom dana ko defal dana ko ca defal jëfi atum lëm moo xam ne daa woor bëccëg ya taxaw guddi ya man xasala yowmal jumaati waxtasala summa bakkara wabtakara wa masha walam yarkab wa dana min al imaami fastamaa walam yalugu kaana lahu bi kulli xatwatin amalu sana ajru siyaamiha wa qiyaamiha kon day won ne kon ajuma kon lu am solo la suñu borom nag nëbbu ci waxtu woo xam ne lu ca ña lu ca lu ca waay ñaan suñu borom nangu ko waxtu injaaba suñu borom nëbbu ko ni mu nëbbalee lu xadar ci biir weeru koor borom xam ne wutee ci lool ñii ne waxtu yii lañ ñii waxtu wee la ñii ne waa la waaye ñu bari ci borom xam-xam dañoo jàpp ne gannaaw ajjuma gannaaw gannaaw julli tàkkusaan ajjuma lay doon gannaaw julli tàkkusaan ñii ne bu imaam tawee ci minbar bi ba kaw ñii sëlmal diggante boobu moo tax am na ci borom xam-xam ñoo xam dañ ko maanaam bu ñu ko sañ julli tàkkusaan ba noppi dootuñu wax kenn ñu tudd yàlla ba jant bi fe jant bi so ku ñu wax yi duñ ju bare yoo xam ne isa salla al lam yu kallim ahadan xataa bu sams ndax dafay soxlawoo tudd yàlla ak ñaan ngir ni ñaan ne demee ci bis boobu saa sañ del waxaan tey ajuma tey jege imaam la amul kenn koo xam ne dafay euh, waxtu nekk day day jéem a sori imaam wala muy yéex a dem lu may rek ëllëg buy tàbbi ajana sax day yéex tàbbi ngir loola uxdurul jumaata والنون الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها بتابع جنة يخطب bisu ajuma it malaaka yi dañuy taxaw ci bunti jumaa ji di bind tur yi ñuy julli si ko askan bind sa tur bind waxtu yu nga agsi ki ñëw ci waxtu njëkk yi dañ koy bindal tiyaabay ki sarxe naaga bu mag giléem badana ki ñëw ci waxtu ñaari ñu bindal ko tiyaabe ku saraxe aw nag aw yëkk ki ñëw ci waxtu ñetteel yi ñu bindal ko tiyaabe ku gàtt waxtu ñeenteel yi ñu bindal ko tiyaabe ku saraxe ginaar kii ñëw ci waxtu mujjoon yi bindal ko tiyaabay ku saraxe ab nen kon ku ne xam ne tiyaaba yi wute na lii daa kaanu yawmu jumaati kaana ala kulli baabi min abaabi masjidi al malaaikatu yaktubuuna al awwala fal awwala fi taa jalasa al imaamu tawu as suxufa wa jaa'u yastami'uuna dikra su imaam xasee ñu ba toog ci minbar bi nag dañu daal di lem seeni dossier daal di toog ku ñëwti duñ la bind dañu daal toog nag di déglu tudd yàlla yi kon teel gaa ñëw kon lu ci am solo la wax ñu nag teel ñëw suba teel toog waaye nag bu boo xam ne waxtu jege na rek nga teel ñëw tagu ngay toog ne ci lu am njariñ bañ a toog loxoy kese waaye di tudd yàlla jàng alxuraan te loo ci defit na doon ndànk nga bañ a soxlaal keneen mën a bañ a wax ca kaw bay yàqal keneen ku ne ci sa ku ne ci sa wet ca la muy def jagle yi aju am tax na itam dañu wax ne julli gi gën ci mboolem julli yi mooy julli suba ajjuma ci mbooloo ajuma julli suba nga dem jullee ko ca mbooloo ma moo gën ci julli alayhi salaatu wasalaam moo ko wax ne afdalu salawaati inda salaatu subhi yowmal jumaati fii jamaatin kon moo gën fa yàlla ci mboolem xeeti e, julli kon julli bi kon na ko waajal ca càngaay dem waxtu soritu mu dox tànkam tànd ko toroxlu su ñëwee mu dugg mu jëtal tànkum nday jooram wax bismillah su àggee itam na fexe ba tooge toogin woo xam ne du dëngal sàppe si tabala toog mu julli ñaari rakaa ngir nuyoo ko jàkk ji su ko fàttee ba toog it du du weesu saa bu ko ko mën na ko def su ko defee ba toog nag suñ noddee du jar muy jugaat di julliwaat dara ndax foofu dig digle waatuñ fi ak julli tànne ci lu am njariñ ni mu ko waxee jàng alxuraan wala tudd yàlla wala jàng xasida wala lu mu mën di def ci lu baax su imaam xasee agsi nag ba yéeg ci minbar bi nag na bàyyi lépp nag tey déglu imaam te di ko xool di ko xool am na ca solo te li ñuy mu tey amul xakam mu wax ne saa su kaana isaa saidal minbara aqbal naa bi wujuuhinaa ilay su ma sa yéeg ci minbar ñi ñëpp dañu wëlbatiku jàkkaarloo moom di ko di ko xool waaye itam déglu ga eh, da ca am solo ndax boo waxee rek boo waxee daa dee ñàkk jullit daa ñàkk tiyaabay ajjuma ñun saa sa newoon na ida xuta li saaxibika yowmul jumaate ansit wala imaamu yaxtubu faxad laxawta su fekkee imaam day xutba am koy wax nga ne ko noppil yow mi ko noppil rek yow amatoo tiyaabay ajjuma kon da noppi bëgg ñu nekk ba mu xam nga ñëw di jéggati mbooloo mi di leen lor loolu dañ ko dañ dañ dañ dañ ko dañ ko tere salaam sa neen képp ko sangu ajuma ko ca sangu ñu ngi ci laab ba keroo ajuma ji delsiwaat guddi ko itam taamu nañu itam ko ca jàng sootul kahfi sootul kahfi saa suñu ne ku ko jàng yàlla dana leeral diggante ñaari ajjuma yi nekk man xaraa sootal kahfi yawmal jumaati aba alla aba allahu min nuur maa bayna jumaatayni yàlla na suñu boom boole nangul mooy defal tawfiq xiir nu ci ak njub te saxal nu ci def nu itam dëgg dëgg taalibe Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nangul suñu taalibe wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu akbar ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah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 الله الحمد لله لله نحمده تعالى ونشكره حمدا وشكرا نكون بهما للدخول في حرمة النبي أهلا ونستزيد بهما من محبته ما نودي بعض واجب جنابه الأعلى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا نحيد عنها بحول الله ولا نحول ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الطيب الطاهر الزكي الفراع والأصول أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله في السر والعلانية ولا تشغلنكم عن التقوى هذه الدار الفانية وبادروا بالأعمال الصالحة ما دمتم في قيد الحياة واجهدوا أنفسكم في تصحيح أعمالها واغتنم الأوقات والأزمان وفضائل الشهور عند إقبالها وتأهبوا فإن الرحيل قريب وتزودوا فإن السفر بعيد وسارعوا فهذا أوان المسارعة وراجعوا التوبة من ذنوبكم وهذا زمان المراجعة واعتبروا وفقكم الله فقد حق لكم الاعتبار واعمروا بعين الفكرة والاستبصار وتعرضوا لرحمات ربكم ونفحاته وكونوا ممن استجاب الله لله ولرسوله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وصومي العبادة مما يكدر من صفدها أو يعود على الحسنات بنحوها الحمد لله الفاعل لما يريد بمحض المشيئة والاختيار الذي خلق العوالم ليريهما لحبيبه صلى الله عليه وسلم من عظيم المقدار وزين به الأكوان وأضاء به الأنجال والأرواح عرف فضله على جميع خلقه فيما مضى من وما ياتي من الأحصار ونستعينه سبحانه وتعالى ونستغفره مما ارتكبناه من الأوزار أما بعد فيا عباد الله لقد استيقظ من استيقظ من سنة الأخلاق فلم يقطع عن مولاه قاطع وفاز من تباعد عن شرك الشهوات فلم يقطعه من الجد في العبادة مانع فكان لله وبالله في الحركة والسكون قائما بأمر الله لا يفارق الذين يتقربون إلى الله ويتعبدون تتجافى جنوب يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون عباد الله اسمه قول الله تعالى إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وتوجهوا بهما منكم إلى حضرة الواحد القهار ودينوا على الاستغفار وسبحوا بحمده بالعشي والإبكار وشمروا عن صاعد الجد للعمل الصالح إن خفتم الفوت وصارعوا لأعمال يجري عليكم ثوابها بعد الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحا آمين يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين akbar allahu akbar ashhadu an la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 والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحرا سنقرئك فلا تنسى إلا من شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى منير يسر باليسر فذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى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 Wow.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 فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم الله asalaamaaleykum.